bàyyi mbër mi doo mën a jël jëlal gaawal ana indi ko bàyyi Yeah. yaakaar naa ne tur bi naka la. Yaranka. Yaranka li nga daanee kii lan la. waaw espoir la rek espoir la rek. mais dama gis jël bi dafa extraordinaire. waaw ñu naan xale ne dañuy jàng rek dañuy jàng rek. mais ni nga ma jaan naka nga ko daanee. waaw xam nga rek daa ñëwee doole quoi yaakaar xëy na peut-être moom ëpp doole noonu quoi xam nga mu ñëw dugg moom ma jël tàng bi bàyyi ko sama ba léegi jël bi da koo jaaxal gëmul ne daan. jël boo xam ne da jaaxal quoi. waaw noonu la ko déggee waaw. Ah, waaw